kii di Ali Khamenei moo ci guide suprême bi te waxoon na ne lii nga xam ne Israël def na ko mooy song bi nga xam ne song nañ ko seen ambassade ca Syrie te mu nekk seen suuf dinañ ci amal ay fayu jortoon nañ nag ne fayu bi dina am ndaxte service de renseignement américain yi yàgg nañ yëglu di wax ne du yàgg dara réewum Iran dina amal ay song ci Israël loolu taxoon na ba ñu déplacé benn haut commandant bi nga xam ne mu ngi woon ci réewum Israël pour saytu wala dimbal leen ci lépp li nga xam ne bi mën nañ koo coordonné tey nag song yooyu noonu réewum Iran comme ni mu ko déggee woon mooy maanaam kii nga xam ne mooy kilifa bi gën a kawe ci réewum koy wax le guide suprême de Ali Khamenei tey song yi amal nañ ko pour le moment dañoo wax ne ay attaque drone la ndaxte bu fekkee ne ay drone Shahed la drone yooyu noonu jafewul intercepté mooy maanaam nekkul ay drone yi nga xam ne drone yu mucc ayib la bu fekkee ne dafa dañ ko tiiree réewum Iran war a ñëw ba néew néew dina def lu mat ay huit heures de vol pour mën a yegg si te loolu technologie yi nga xam ne israéliens yi am nañ ko américain ak seen boole loolu dina yomb ñu yàq ko ndax drone yi ay leurre lay doon mooy maanaam ay ndëgg sërëx lay doon pour ñoom seen système de défense yi bu ñu concentré su dënn yi ñu yónnee ay missiles balistiques parce que réewum Iran am nay missiles balistiques am nay missiles de croisière waaye lii nga xam ne moo am ba des kii di Joe Biden nekk njiitum Amérique dakkal na lépp li nga xam ne xumute lu mu doon amal dellu Maison Blanche lépp li nga xam ne aussi état major bu réewum Amérique la ñoom ñëpp ñu ngi en état d'alerte réewum Jordanie coupé na lu ñuy wax espace aérien euh, écoles yi nekk Israël yëpp tëj nañ leen maanaam ñoom ñëpp wax nañ xale yi fii ba altine du ñu nangu benn rassemblement si li nga xam ne espace public la moo xam école la moo xam fooy mbooloo yu daje yëpp dañ koo dakkal pour xool lan la fayu bii nga xam ne Iran digge woon na ko fan lay mujjee kon xam ngeen ne depuis deux ans boobu ba léegi maa ngi def chronique di leen wax ne euh, tension mondiale bi dafay gën a yéeg wax naa leen ne risque de conflit majeur mun naa am ci fii nga xam ne mooy Indo-Pacifique ci diggante Chine ak Philippines Euh, Australie ak Japon bi nga xam ne réew Amérique nee du bàyyi benn yoon seen di toroxal ñooñu wax na leen ne aussi conflit majeur beneen conflit majeur mun naa am ci diggante Russie ak Ukraine bii nga xam ne OTAN ak Union européenne nee nañ du seetaan Russie di jël réew Ukraine di ko phagocyté donc tey te rax si yi àdduna bi yëpp dañoo ñongal seen gànnaay mooy maanaam li ñuy wax course au à tey la gën a am doole réew yi nga xam ne programme mu ngànnaay bokkuloon seen programme ñoom ñëpp su par nañ gis ngeen ne Allemagne bi nga xam ne depuis deuxième guerre mondiale daanaka nation pacifique la woon daawul dugg ci benn opération militaire tey dekkaliwaat na lii nga xam ne mooy état major am ñoŋalaat armée yokk production ngànnaayam ba tey mu ngi yebal ay soldats fii nga xam ne mooy Lituanie. te dinañ fa toll lu mot 5000 mooy depuis deuxième guerre mondiale ba léegi ay soldats allemands mosuñoo génn génn nañ te wax naa leen ne tendance bi général Chine ñoŋal na Inde ñoŋal na France. yokkataa ay capacité de production am démb tegaan bi ay koppar yu bëri ubbaat ay usines yi nga xam ne dafay defar ay obligé xam nga maa leen di wax ne leen conflit buy am amul benn réew bi nga xam ne da ngay wax ne dañ laa bett même ñun suñu réew Sénégal sax gis ngeen ne suñuy force de défense et de sécurité ñongal nañ lépp li nga xam ne seen jumtukaay xarala guerre la moo xam ci bateau moo xam ci ay ngànnaay moo xam ci ay drone loolu mooy tendance mondiale bi mooy maanaam course à l'armement ndaxte risque de conflit majeur tey la gën a dëggu man nag bugguma nekk lu ñuy wax un oiseau de mauvais augure augure mooy maanaam bugguma kii nga xam ne man maay wax lii nga xam ne moo nar a am si lii nga xam ne daal la ñuy jàngat mooy tendance bi nga xam ne àdduna bi fa la jëm ci jëm ci wàllu ngànnaay ak ci nuñ koy liggéeyee production bi nu mu yokkee ngànnaay yaakaar naa ne buñ koy liggéey si pour waajal seen bopp ci ay guerre te guerre boobu nag yàlla nañ ci yàlla musal waaye dafa mel ni tey la gën a xeeñ ne àdduna bi daal mu ngi risque basculer ci lu ñuy wax troisième guerre mondiale yàlla nañ ci yàlla musal fii laay ñëw nag bu subaa ak développement yi dañ gën a ñëw pour gën a yaatal. asalaamaaleykum sama gaa yi tey le dimanche 14 avril 2024 tey li soit ak yéen seen actualité géopolitique mondiale bii nga xam ne dama koy consacré ci lii nga xam ne moo xew ci fi ñuy wax Proche-Orient dox ci diggante réewum Iran ak réew Israël xam ngeen ne kii nga xam ne mooy guide suprême bu réewum Iran ñu koy wax Ali Khamenei dafa xamle woon ne song bii nga xam ne. Israël amoon na ko ci ambassadam bi nga xam ne moo nekk ci réewum Syrie bu Bachar al-Assad song boobu noonu dinañ ci indi ay tontu yi nga xam ne ay tontu fayu lay doon tontu fay yooyu nag démb réewum Iran amal na ko ndax soxna lu mot trois cent missiles ak ay euh, drone yi nga xam ne da ko song ci réewum Israël waaye kii nga xam ne mooy porte-parole armée bu Sahel dafa xam ne ne missile yi nga xam ne ak euh, drone yi nga xam ne yët nañ ko askanu Israël daanaka quatre-vingt-dix pour cent dañ ko neutraliser mooy maanaam amul benn yàquteef lu dul ay dégâts mineurs ak benn xale bu jigéen bu tuut tànk bi nga xam ne moo ci am ay gaañu gaañu waaye kenn ñànku si bakkanam te lii nga xam ne mooy song bi nga xam ne Iran amal na ko. moom euh, maanaam ay dégâts mineurs dong la jural réewum Israël léegi nag xam ngeen ne kii nga xam ne mooy chefu euh, guide de la révolution bu réewum Iran dafa xam ne ñoom atteindre nañ seen i objectif mooy maanaam lii nga xam ne moo nekkoon seen i sàkkuteef matale nañ ko loolu tax na sax ba askanu Iran génn di jubilé mooy maanaam di sara xool ne ci song bii nga xam ne amal nañ ko réewum Iran waaye lii nga xam ne mën nañ koo jàpp si euh, tënk wala si jàngat mooy maanaam Iran Euh, sow fayu bii nga xam ne da ko waroon fayu maanaam euh, deful lii nga xam ne dafa yokk ci xar bi karaw wala deful lii nga xam ne dafay déclencher une guerre directe entre moom ak Israël ndaxte bu déclenché lii nga xam ne dafay doon guerre directe moom ak Amérique dinañ laale te gis ngeen ne non seulement Amérique taxaw na ci wetu Israël jàppale ko ba nga xam ne missile yi nga xam ne yónnee na leen seen lim lu muy takku yépp dôme de fer beeg réew Iran réew euh, Amérique ñoom ñoo tax ba song boobu noonu amul benn njeexital ci askanu euh, Israël te réewum France itam jàpp na ci mooy maanaam France euh, Israël ak Amérique jàppale nañ euh, ma seen anti yi ñoo taxaw ba maanaam song yi nga xam ne euh, euh, armée bu Iran song na ko amul njeexital ci askanu Israël ndaxte ay dégâts mineurs ñoo fi am ak benn xale bu jigéen kott moo ci gaañu par rapport ak perte yi nga xam ne Israël infligé na ko réewum Iran ndaxte boo reyee ay généraux nga rey ay ay groupe yi nga xam ne chaque jour. Euh, réew Israël mu ngi leen di bombardé ci fii nga xam ne mooy Liban mu ngi leen di bombardé ci fii nga xam ne moom mooy siri ba ci Irak te toujours ay kàngam la ñuy laal mooy maanaam ay kilifa yi nga xam ne ay kilifa yu mag lañ ci gardien de la révolution parce que ñii nga xam ne ñoo faatu ci ambassade euh, bu nekkoon ci siri ñaari généraux la Israël faat te Israël avant loolu yàgg na di diir. ay kàngam yi nga xam ne dañoo seen xel dafa màcc si wàllu énergie nucléaire mooy maanaam ay ingénieurs yi nga xam ne ñoom seen xel daa màcc dem ci wàllu euh, nucléaire ñooñu Israël fàtt na ci ju bëree bëri waaye moom daanaka mosul di revendiquer assassinat yi nga xam ne da koy amal ci euh, doomu iranien yi nga xam ne dañu yëngu ci wàll boobu noonu donc tey lu ñu mën a jàpp mooy réew mi Iran pour bañ a ñaaw ci xarab yi deful li nga xam ne dafay déclencher une guerre directe ndaxte waxoon naa leen ne bu fekkee ne dafa bëgg song dëggantaan njaay réewum Israël bu boobaa euh, réewum Amérique dina am occasion pour jàmmarloog moom te gis ngeen ne réewum Amérique képp ki nga xam ne da ngay menacer alliéem day taxaw ci côté parce que wax naa leen ne Chine xelam mu ngi ci nangu Taïwan mu ngi koy yuuxu ci kaw mu ngi koy wax ci kaw waaye ba léegi jàpp na ne àpp bi motagul parce que euh, réewum Amérique dafa taxaw wax Chine ne carrément. Taïwan boo ko songee ñun nañ la aar waxaat na ne aussi Chine soo laalee Philippines ak dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci mer euh, mooy l'Indo-Pacifique di nga di nga jàmmarloo ko ñun noonu la ko waxee aussi jëm ci réewum Iran da ko ne Israël sunu allié la soo ko laalee dig ñu laal loolu tax na ba. Iran song bi nga xam ne da ko bëggoon song daanaka deful lenn li nga xam ne dafay lor Israël wala dafay gaañ Israël loolu mooy jàngat bu njëkk bi nga xam ne mën nañ ko ci am ndaxte bu fekkee ne moom dafa bëgg a jàmmarloo lii nga xam ne mooy programme nucléaire am mu sori ci lool lool lool lool lool daanaka riposte bi day dem annuler loolu yëpp mooy maanaam ci saa si lii nga xam ne mooy nekk cible prioritaire américain yi mooy centrale nucléaire yi nga xam ne jàpp mën jàpp nañ ne menace la pour Israël lépp la ñuy yàq te loolu day tax nga recommencer waat à zéro ñoom jàpp nañ ne jamono jii fu ñu toll amuñu benn yoon intérêt di jàmmarloo lii nga xam ne mooy réew Amérique. parce que wax naa leen ne Amérique mooy mooy la première puissance militaire au monde Chine bii nga xam ne am na doole lool lool moom tam jàpp na ne àpp bi matagul pour war a mun a jàmmarloo lii nga xam ne mooy réew Amérique ci Taïwan kenn daal moo defagum li ni mel te du directement ndaxte wax naa leen ne am na ku ma laaj ne ma lan moo tax kii Amérique ñemewul song Russie c'est bon question xam ngeen ne ñoom ñaar yëpp. ñoom ñoo tolloo doole ci wàllu nucléaire Russie sax moo ko ëppale ay ogive nucléaire loolu wax nañ ko ba mu leer nañ Russie lu mu am ci ogive nucléaire kenn amu ko ci àdduna bi moom moo ëppale ay ogive nucléaire waaye bu ñuy wax ci wàllu production armement réew Amérique amul kenn ku koy dab ci àdduna bi la mu yor ci porte avion la mu yor ci avion la mu yor ci base militaire ci àdduna bi mu tas ko dans les quatre euh, cardinaux ci àdduna bi benn réew amu ko moom moo am ay base partout te loolu avantage la bi nga xam ne géostratégique la ndaxte moom buy amal song soo ko songee ci réewam mën naa déparé sur n'importe quel point du globe ñëw indil la ay riposte te def na ay baas yi nga xam ne yokk na ay baas militaire am ci àdduna bi def na ay vidéo di ci wax base yu bëri yi nga xam ne da koo bàyyi woon sax tijjiwaat na ko te wax naa leen ne àdduna bi ñëpp a ngi waajal seen bopp jëm ci ay conflit majeur bu naree am fu mu nekk nii amul kenn kuy nelaw jëm ci wàllu ngànnaay wala jëm ci wàllu ñoŋal sa toogaay ci wàllu armée ndaxte gis nañ ne tension yi nga xam ne moom mooy am ci àdduna bi loolu foofu rek lay mujjee foofu njeexital bi mooy maanaam ngànnaay yi nga xam ne ñu ngi koy def mooy maanaam pour kenn ne dañ laa bett wala sa borom da laa bett moo tax la bu ku nekk yaa ngi defaraat sa toogaay léegi nag xam ngeen ne Iran dafa am benn influence bu jéggi dayoo jëm ci fi ñuy wax proche ndaxte réew mu ñuy wax Irak askanu Chine ñoo fa am na fa influence bi nga xam ne influence bu mat la réew bu ñuy wax euh, Syrie am na fa influence réew bu ñuy wax Liban am na fa influence réew bu ñuy wax Yémen aussi am na fa influence te dafa am ñi nga xam ne ay askanu Chine la ñi nga xam ne Iran moo di dooleel jëm ci wàllu ngànnaay gis ngeen ne outils yi fexe nañ ba bloqué faire fi ñuy wax mer rouge ci trafic mondial commercial bi nga xam ne fekk maritime bi fa lay jaar gis nañ ne yàq nañ ko ba maanaam bateau yu bëri dañuy def contournement léegi aussi loolu point névralgique la bi nga xam ne Iran mën na cee sukkandiku te gis ngeen ne moom ba muy amal song Israël dafa menacé képp ki nga xam ne dëkkandoo nga ci kaw boo jëlee sa espace aérien nga baaxe ko nga baaxe ko armée israélienne donc gis ngeen ne àdduna baa ngi noonu waaye lu ñu mën a def wax daal ci jàngat ci tënk mooy Isra Iran dafa indi dal mooy maanaam fayu bii nga xam ne da ko doon fayu deful lenn li nga xam ne dafay lor wala dafay xuri askanu Israël ndaxte loolu mën na déclencher une guerre directe loolu mooy jàngat bi nga xam ne def nañ ko ci fayu bi ndaxte 300 missiles yi nga xam ne dóor na ko yëpp amul benn bi nga xam ne faat na doomu euh, doomu Israël seen xarit la woon Léon Balthazar le caméléon di leen ñaanal dimanche su jàmm ak salaam.